alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullah sant nañ yàlla bu baax julli ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam sant ahmadul xaddiim ñaan sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na yàlla yàggal ko fi lool yàggu kéemaan na fi yàgg tànd ak wér ak kàttan ay naalam yëpp yegg te lum séem bu ñu moom te daje si ak ngërëmul ahmadul xaddiim di sant lool bu sobaale nii ñu ñaanale sëñ taxa ak yàgg yàggu kiimaan sàllaaw noonu lañ lay ñaane ñaanale nga yàgg fi lool bu soo yàggu kiimaan tegu na fu leer ndax suñ njëriñ nga faaw ñu gàttal ndax daa mel ni waxtu wi sëñ yi sëñ ni ma koy waxee rek laa ko laa koy waxe mët nañ sëkk sëkk sëkk loo bëggoon bëgg lu baax te sa gannaaw deme nam deme nam deme rek lay dem waaye loo yéene ci ñun xamees na ko lool waaye mel na sa yéene ca la ñu teg seenu jàpp ci ñun lu wér la sosuma ci dara kon alhamdulilah ñu sant yàlla lool ndax ca gannaaw dama la noonu na ah nanga nga ñaan kat ndax yàlla màggal gi la ma tontu nga ma tontu la ñu tontu woon lañ gis dara coosut lépp mat na def kook yéene lool ci guddi yeeg ci bëcc gi jamono ñu ne ñu ngi xëy ko gont ngir rek mu sont sont na alhamdulilah ñu yàgg gën fee yàggati gon koo fekkeeti suñu yéene di di di dolleku suñu pas-pas di dolleku ci ahmadu suñu mën a jëf te nangoo jëf te yéene koo jëf di dolleku ndax ni dana man te waaye yéene ji nay dolleku saa su ne te man ngi topp ci ñu ngi sant baax te ziar liggéey bi daal mu ngoog sëñ Fallu jéem nañ li ñu man donte jéem nañ daal lu ñu man lu ci di lu damm sàllaa du yéene kon san nañ bu baax te gërëm jaam ñaangoog seenu bëgg bu doon lu ñu mën a tàllal nii nga ciy xool la si jiitu mooy nga yàgg fi dama damay wax ni maanaam ku lay ñaanal ñun lay dimbal waaye ni koy waxee am na lu ñuy yootu te mënuñ koo jot te mënuñ ca dara te jootaguñ ca te mënuñ ca dara am na ñu bëgg am nañu lu ñuy tiit bëgg ñu teqale koor ak moom lu ci ne lu ci lu ci ne la ca war kon jaam ñaango ku ci nekk am na lu mu lu ñaanal ku ci siggi siggeeg aaju fajoog ngir mu jug waaye na bëgg sëñ Tuubaa gi dolle ko mooy fondement bi waaye njub gi njub gi njub gi te teg ko fu mu ko mënti teg te tegu ko ci njub daanu képp a ciy mujj kon ñu ngi tuub bu baax nii ñuy taxawee liggéey bi fii ci jumaa ji noonu la ñuy taxawee liggéeyub jumaay Masalik damay seere jamono ju ne ne seenug nangu ak seen pas-pas ak seenug dogu foo ko takk weesuma kon ànd bi du hasard ngeen ñaanal ñu yàlla ànd bi dara ban cee kuruj loo xam ne génn na bëggu Ahmadul Xadim ñu ànd ko bi fu mu ñu ngi tub bu baax tey gërëm mi ngi bëgg gudd san nañ alhamdulilah ala kulli haal asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci turu mi nga xam ne moo toog toogaayub sëriñ ku ko liggéeyal ku nekk moo la war a sant kala sant mbaa kala sant moo ko ko war a digal kon mi ngi leen di nuyu ci turu Cheikh mun Mountakha ak mbooloo mii nga xam ne moom la ñu àndal mu xad liggéey mu xaddimatul xidma te ñu seq liggéey bi te te te te rafet lool nee ni ma ko waxee sànq waa musuma dañ di ko wax yàlla na ko yàlla jëmale kanam ba faw wax ji nee na du gudd ndax nee na lu ñu fi wax rek lu mu waxoon lu mu waxoon lay doon nee ndax luy lu muy seede rek lay wax te lañ ca doon seede daaw lañ cay seede ren mbaa ko ëpp lay doon ndax pëseef bu mat ak ite kawe loolu nag ña doon dem gànnaar ak dem jolof tey jaay seen bakkan loola rek moo leen yittee woon yëkkati woon nee na loola yit moo nekk si ñun neen te loola it mooy li ñuy rëbbe sëriñ bi nee na sëñ bi lu dul pëstéef du ittee xeju ca ndax loola ca la di dox du ànd ko amut ittee du ànd ak ko amut pëstéef ndax du nax kenn te it lu mu yor ci loolu la koy joxe pëstéef ak yitte loola lan lay seede ne ne gis nañ ko ci mbooloo mi alhamdulilah me ne mbooloo mi gis nañ ci ñoom itte gis nañ ci ñoom pas-pas bu dëggoo dëgg bu réeréeréy loolu nag rek mooy kàddu yi seede lañ ci seede lañ ci. nee na ñu xam ne daal seede lañ ci. nangu nañ koo seede. te nangu nañ koo seede it. ci kanam ci kanam Cheikh ci kanam Cheikhul Khadim ndax lu mu mën a la. nee na li muy wax nii. bu Cheikhul Khadim toogoon. gën maa xam sa bopp sama bopp. gën ma leen a xam. gën ma xam. sañ na sañ na koo seede. fa samay bët yem. ndax foofa la samay bët yem. ndax foo samay bët yem. te it mën na koo waat. moom nag xëy na xam na leneen. nee na moom nag xëy na xam na leneen. man li waat ci kanamam. nee na moom li mu mën a waat ci kanamam. nee na yéen borom pësteef ngeen. mbooloo mu bëri pësteef ngeen. mbooloo mu kawe itte ngeen. mbooloo moo xam ne liggéey sëñ Tuubaa rek leen ñor. jaral na leen lu ne itam. kon nag. ñu xam ne cër yi cër yi ñoo ña amoon. ñu xam ne cër cër yi ñoo ña amoon. ka leen ko joxoon. dara wàññi kuusa. ma nga fa ba tey boo sakkee noona rek ku ko sakkoo noona rek amee ko noona lu fi jëf rëy rëy lu fi ab yëngu rëy rëy loolu rek ku jur te te te te yéen a nga ca nal ñoo ci yàlla saxal ku ku ne ci yéen yàlla defal ko ak bëggam tawat fajal la sag tawat barkeel njaboot gi barkeel leen te barkeel njaboot gi yokk wér yi yokk fan wi yokk xéewal yi ba ñu mën a liggéeyal sëriñ bi ndax ni mu koy waxee wér ak yor rek moo koy liggéeyal mooy seede ak taalibe ku wérut yorut mënuñoo xam ci ak taalibeem dara ki wér di daw yor di joxe mën nañ koo seede kon nag yàlla nañ ko yàlla suñu borom defal. jox ba mu dooy sëkk. ba ku ñu xool. oh xam xam ne am murute nga ne. bu fa siyéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa di daw di liggéeyal Sëriñ Tuubaa te it Sëriñ Tuubaa dana ko gàttalu bila sakkin salaamaaleykum wa rahmatullah su leen nag fi yàgg